Malang Fadera maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk secrétaire général bu parti démocratique euh, sénégalais foofu ca euh, Bagnères plutôt nekk aussi responsable bu UJTL ci parti démocratique sénégalais déjà euh, naka nga gisee décision bi nga xam ni finalement njiitu réew mi jël na ko di président Sall nee na du bokk ci candidat pour élection présidentielle yu 2024. waaw defuma lu les citoyens dama jàpp ne lenn rek moo la war jamono jii mooy rafetlu bi décision nga xamante ne président Macky Sall jël na ko gaa sax nit ki waruñu kaa mën a féliciter nga xamante ne mooy loolu dafa wàccoo ak ak ak charte réew ñu koy féliciter si loolu en principe waaye nag bu kenn fàtte soo xoolee déjà meeram yi ni ko daree ak ñi nga xamante ne ñoo nekk sa parti ñu leen wooye des faucons ak ñi nga xamante dara yitelu leen lu dul rek seen i bopp soo leen toppoon jamono jii nii su mën na see dugal réew mi ba te boobu su boobaa même bu fekkee du jàll mais ñaata nit tey ñoo si ñoo si dee ñaata nit lañ ciy tëj ñaata nit ñoo si ñaax seen liggéey ñaata entreprise ñoo si yàqu ñaata nit ñoo si yàqule seen alal kon bu fekkee tey président Macky Sall quel que soit le format même bu fekkee sous pression la quitté même bu fekkee sous pression moo tax euh, taxawul tey ne day nekk candidat man defuma lu du rafetlu ko te dama jàpp loolu mooy jëru bépp citoyen waaye nag soo xoolee a jaaxal moonte te yow fu ne wër nga fa ci àddina ne kii dafa bëgg def président troisième mandat yow plateau bu nekk toog nga fa nga troisième mandat la ba yaa xayti kooku toog tey ne bëgguma def troisième mandat nga mel ne ko jufur sa xol bi di tànge sa xol bi di saxaar mais man loolu laa mënta comprendre parce que à la limite je me suis bëgguñu woon sax président Macky Sall damay nekk candidat su ko defee réew mi pëccaxoo réew mi jaxasoo ñu mën a am porox ndollu ci loolu lii nga xamante moo yàgg nekk seen rêve daan daaneel nguur daaneel république daal jël pouvoir fokkati ko si si loxoy si loxoy li Sall nga xamante ne moo nekkoon suñu sag ñun mooy conquérir le pouvoir par la voie des urnes ñu daal di ko jël dëgg si seen tànk fexe soit armée bi jël pouvoir wala soulèvement populaire ñu daal dina sarax si biir palais bi su xoolee seen réaction man damay am tiitange damay rus damay am gàcce damay naan ñii dara askan bi taxu leen jóg ñii lu dul seen seen bëgg-bëgg bopp taxu te loolu mbonte boobu noonu man dax ma yéem si si si jamono ji ci lu muy gis si wàllum politique kon kon le président Macky Sall defuma man lu dul félicité ko lu dul rafetlu li nga xamante loolu def cela ne veut pas dire que nag dama apprécier lépp lu mu def mm. déedéet te a ne xam na ni bëri yàgg na fee def ay dérives démocratiques ku a xam na ni yàgg na fee def ay tooxi doona si wàllum démocratie mais cela ne veut pas na rek su defee tey lu baax doo ko apprécier maa koy apprécier di ko rafetlu bu baax. Mm-hmm. Euh, tey jii euh, Macky li ko dese ci bopp réew mi sept mois la officiellement euh, pour yow naka la ko war a jeexalee. mu war a njëkk def mooy fexe ba lii nga xamante mooy question bulletin unique mu réglé ko ndaxte bulletin gaaw na te lépp li nga xamante ne aussi mooy wàllum achat de conscience maanaam indil ma bulletin diw ma jox la nangam loolu yëpp aussi mën nañ ci bu Sénégal mën nañ ci mën nañ mën nañ ci mën nañ ci mucc te su boobaa Sénégalais daan nañ tànn ki nga xamante ne xëy na moo gën a baax le programme su ko defee réew mi réew mi daal di dox beneen bi mooy ñi nga xamante ne noonu la ñuy contrôler le fichier électoral mu fexe taxaw lu ñu des cabinets indépendants yoo xamante ne ñoo ñëw càmbarat fichier xool lan moo si lan moo baax ak lan lan lañ ci war a mën a jubanti daal di ko si jubanti ñetteel bi mooy dama jàpp ne kii nga xamante ne moo war a organiser élection yi war naa nekk koo xamante ne ku maanu la ku bokkul ci benn parti politique la comme ni ko Abdou Diouf nangoo woon Abdoulaye Wade nangoo ko moom la président Macky Sall tey loolu rek mooy sagam fexe ba kii nekk koo xamante ne daana doy daanañ ko doyloo ñun ñi nga xamante ne ñu participer ci élection benn coow du am suñu résultat bi su génne bañ ne lii la ci ñëpp mën kaa nangu loolu day renforcer li nga xamante ne sagal na ko dèjà du fekk rek mën a du candidat sag la ci moom waaye loolu dafay dolli di ko gën a sagal Euh, tey ji euh, naka nga xalaatee ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñu leen di wax ay détenus politiques nga gis ni waaye askan wi ñoom nee nañ dañoo bëgg euh, ñooñu ñu libéré libéré leen pour jàmm am si réew mi. waaw xam nga li nga wax dafa leer da nga ne détenu man képp kuy détenu politique jàpp naa ne war nañ la génne waa ndey ko ma dem di lakk suñu BRT est-ce kooku détenu politique la. ki dem di lakk tey université est-ce que kooku détenu politique la ki dem di lakk oto jàmbur est-ce que kooku détenu politique la ku dem di lakk place su jàmbur est-ce que kooku détenu politique la man tey awma information yi ñu am ñoom ñooy exploité téléphone jàmbur yi ñoom ñoo xam ñoom ñuy déglu école euh, téléphone yi ñi di xam lan la ñuy waxante ñoom ñoo am des moyens de vérification yoo xamante ne man mii di citoyen simple awma ko ñoom ñoo xam loolu lañ gis ñoom ñoo xam lan la enquête joxe donc man mënu ma taxaw ñu ne ñu génn ñëpp te gëmuma ne ñooñu jàpp ñëpp c'est des détenus politiques mais kii nga xamante ne wax xalaatam moo tax ñu jàpp ko dama jàpp ne gàcce la sax pour ñu téye ko ci kaso ba waaye nag kii nga xamante ne dafa dem yàq alal boo xamante ne Sénégal ñëpp ko cotiser si suñuy lempo léegi lu ñuy dagg impôt kuy liggéey xam nga lu ñuy dagg si impôt nu metti ñu jël xamante ne day jëriñ ñu ñëw si si si ko ñu jàppale ne la ropp si kese nga ne détenu politique mënuma ne ko ko détenu politique te loolu j'assume que képp koo xamante ne dañu jàppee si ñaawteef waruñu la bàyyi parce que une république aussi il faut que loi loi koy ñu koy ñu koy ñu koy dawal te man lu ma gis réew mi mooy daam ñoo xam ne dañoo daa a am benn immu immunité quoi. immunité d'un acteur politique benn euh, comme par exemple yow acteur politique nga wala journaliste nga yow daal lu la neex war nga war nga xam ne réew mi te dara du la fekk loolu dama ne moo war a a am ci benn réew boo xamante démocratie la woote donc tey képp koo xamante ne prisonnier d'opinion nga war nañ la mais képp koo xamante ne si tayef nga yàqee alalu alalu jàmbur dama a appliquer voilà euh, ñu wax ci leneen ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, révision wu procès bu may sa Wade mu nekk loo xam ne yéen yàgg ngeen ko laaj waa parti démocratique sénégalais ñu akte ko ci jalook euh, national bi naka ngeen ko gisee dafay am avant élection yi war a wala après élection présidentielle bu deux mille vingt quatre. waaw xam nga loolu Macky Sall moo a tontu mais man ci lu ma mën a tontu mooy damay rafetlu dialogue bi parce que lii mu ngi tukkee ci dialogue ndaxte dialogue bi may na tey Macky Sall porox ndollu pour mu mën a respecter sa signature ndaxte ku ne xam na ni Karim Wade gagné na état du Sénégal lu toll si fukk ak ñeenti yoon ci international procès yi nga xamante ñu ko fay te nag bu leen fàtte Sénégal soo jëlee suñu constitution si préambule bi maanaam te fa muy tàmbalee ak à son article quatre-vingt-dix-huit dañ la wax ne que Sénégal saa yu demee ba signé benn convention wala benn acte waaw yow nga signé ko charte yooyu noonu signé convention yooyu noonu ay institution internationale ni la nii def tegoo ko fen da nga reprendre le procès depuis kañ nga tax nga taxaw leen tànkam lu kon tey bu fekkee dialogue bi tax na état du Sénégal mu amaat recul ba xoolaat boppam xam ne lii mu defoon tegoo ko daa war a internationale man def ma lu dul rafetlu dialogue bi ndaxte tamit bu leen fàtte ne si dialogue bi le ponk xam na ne day jëlee ko si zero virgule six ba huit pour cent fa la ko jëlee kon xam na ne parrainage des élus yi nga xamante huit pour cent yi ñuy wax si député yi tolloog tey su ñett parlementaires yi la war a mën a signé la nga am parrainage mais fa la jógee trente millions yi nga xamante moom la ñu caution moom la ñu retenir tey si caution présidentielle bi la jógee tey modification article L L vingt huit ak du code électoral ak article que perdre ses intégré la loolu yëpp si dialogue bi la tukki mais aussi li nga xamante ne mooy la question du can du candidature du président sortant bi nga xamante ne sax réglé wuñu ko woon mais président yàlla def si jàmm bu mujjee ñëw taxaw na bokkatul mais loolu dialogue bi ko bu fekkee dafa réglé loolu yëpp ba réglé waale lii tax Sénégal ñu ko doon xoolee état voyou mu daal di dañ kon man damay def lu rafetlu dialogue bi nga xam malgré lu ñu wax yëpp te nag Macky Sall lu ko war tey mooy ba sàmbante ndaxte nit ñi ils ont fait face à la diabolisation ils ont fait face au dénigrement à des pour ñëw sauver Sénégal ci guuta bañ ko bañ ko ci guuta ndax am na ñoo xam ne suñ seen réew bu boy mais ñi nga xamante dañ taxaw ñu ne réew bi dañ koy pëncoo ba ñëw taxaw def seen full ak da bàyyi diabolisation boobu yëpp ñu mën ko affronter kon tey su loolu amee tëkkee si garab yi président Macky Sall am na lu ko war ba tey lu ko war mooy ni de loi bii nga xamante ne mooy laaj a gaawe mm-hmm. kon parti démocratique sénégalais yéen a ngi préparé retour Karim euh, Meïssa Wade cérémonie investiture bi euh, kañ la exactement waa joxaguñu date euh, date précise waaye nag soo xoolee bi gannaaw bi président de la république dafee benn sortie ba pare ki nga xamante mooy porte parole parti bi ñu ko Tafsir Thioye bind euh, na benn communiqué déjà daal di woo Sénégalais yi pour ñu ñëw rejoindre ki nga xamante mooy candidat bu gën ci réew mi ku ne xam na ni dafa am benn profil bu muy dégager te profil boobu noonu lépp looy wër si président bu baax ku ne xam ne moom ñun si suñu candidat déjà am na vision liggéeykat la pragmatique na am il est d'une bonne morale mooy maanaam kenn mosu kaa dégg si dara lu ñàkk fayda kenn mosu kaa gis si benn bërëb boo xamante ne di nga ko fa xeeb kenn mosu kaa dégg dara lu nga ko xeebee am xam na fu muy teg tànkam loxoom set na am na xam-xam waaw kon kooku noonu moo tax suñu porte parole profité sa occasion bi nañu ah tey de am na benn épine président de la république teggil waaye nag war ñoo yem foofu de dañoo war def kànteef bu baax ndax Sénégal tey ñu ngi jublu si moment yu crucial si suñu àddina ñu ngi xamante ne am na ñoo xamante ne suñu sañoon réew mi tàkk ndax ñu mën a sàcc suñuy pétrole day booy pour ñu mën a profité suñu ressource naturelle waaye nag moo tax ñu ñu war a ñu war a bañ a sàggan te ñàkk sàggante boobu noonu il faut ñu am profil bu ñu tànn tàndaleen Karim Meïssa Wade mu jëlee Sénégal yóbbu ko si benn puissance économique te nag gëm naa ni Sénégalais yi wax dëgg yàlla ñu ngi suuf ndax soo xoolee rien que deux jours yi nii rek adhération yi ñu am dafa jéggi dayoo adhésion yi ñu am dafa si parti bi mu teg si ne la profité si même communiqué ba mu ne la ñun de ñu ngi sax waajal suñu suñu cérémonie d'investiture loolu nag du gulet si PDS ndaxte soo jëlee deux mille quinze déjà defoon nañ a nekk xam ne ne kenn rek koo xamante mu deux mille quinze fekkoon élection yi ñu ngi ko doon deux mille dix malheureusement président de la république daal di renouer li nga xamante ne la bëggoon organiser def mandat cinq ans mu jóg ko def di ko ba sept ans donc pour dire que loolu tradition la su suñu parti te rek ñun rek ñooy parti jamono boo xamante moo nangu malgré ce contexte bu jafe bii daal di dem si ay renouvellement de ces instances te nag soo xoolee parce que daanaka léegi ñu jeexal ko te bientôt dinañ ci yegg incha allah balaa élection présidentielle parti bi moo bindoo noonu ñun on a un parti fort te parti fort boobu noonu ñu am soo xoolee déjà euh, soo xoolee déjà rien que rek euh, voilà rien que rek déjà euh, soo jëlee la la les élections locales passées mm-hmm. ñu ngi am ñun lu toll sur cinq cent mille voix ñun cote alors que soo jëlee l'autre coalition ñu koy woowee la coalition triple XL bi ñuy woowee Yewwi Askan Wi foofu noonu Pastef fa la bokk Taxawu Sénégal fa la PUR fa la bokk ñoom ñëpp soo dajale seen voix ñu ngi si sept cent mille voix te nag ñun bi am cinq cent mille voix soo jëlee collectivité territoriale yu bëri ñu fa si élection yi département yi bëri participé wu ñu fa gisuñu Karim Wade gisuñu Abdoulaye ñu am loolu waaye tey kon suñu demee Karim Wade na jëpp si langue yi ku na na ni cool yi donc moo waral tey jufur yi ngay gis suñu demee Karim Wade ñu bëgg say mais nag on ça si élection saa yoo déggee mu ngi ñëw wax dëgg yàlla bu dee nit na waroo nelaw. Euh, candidature Ousmane Sonko ba léegi di poser problème ndax ay dossier euh, judiciaire moom sax waxoon na ni dialogue bi euh, maanaam bokk na ci deal bi nga xam ni dangeen ko tëral PDS Macky Sall ainsi de suite pour écarter ko ci présidentielle bu 2024 mu mel ni li mu wax dëgg la Malang Fadera. au contraire dara dëgg amu ci Ousmane Sonko loolu moo wax dara dëgg laa la wax amu lu tax dara dëgg amu ci mooy dafa waxoon ne que dialogue bi prétexte la woon tey pour écarter moom candidature am daal di valider la candidature de Macky Sall waa tey est-ce que Macky Sall candidat la xam nga yow tey la posé question mën nga ma tontu ne Macky du candidat kon ce c'est pas beneen bi mooy bu fekkee moom dañ ko topp toujours sur logique am xanaa kon moom moom 2019 moom dafa complété woon pour ñu éliminer Karim Wade Khalifa Sall ak yeneen candidats ndaxte bul fàtte ni deux mille dix neuf dafa amoon benn kuréel bu tënkoon opposition bu ñu ko wéyee C vingt cinq maanaam euh, ñaar fukk juróom candidat yi nga xamante Macky Sall da leen écarté woon injustement ñu daal di euh, am benn kuréel bu ñu tëral suñu benn sart ñu ne kenn si ñoom di dem élection malgré ne ñeenti ñi ñuy validé tant que ñu ne ñëpp boolewu boolewaatuñu leen Ousmane Sonko daal di ko signé Idrissa Seck daal di ko signé Issa Sall daal di ko signé Madické Niang daal di ko signé loolu lañ gis Ousmane Sonko dafa xëy ca lendemain bi la jël otom daal di ko dugg si àlam naan day campagne waaw moom te à l'époque ku ne xam na ni ku signé dara te jëfewoo ko doo dara lu dul traître waaye nag ñun jamono yooyu taxaw ñu ñu ne ko traître nga ñun dañoo mun gëm ne bon xëy na moom position parti am na ku nekk da nga koy respecté l'indépendance parti waa mais lan moo war a a tax ñun tey ñu dem sa dialogue ba du bëgg ñoo reproché ni dañoo bëgg a complété contre moom et puis sax nga mës a gisee si àddina ngay dem bëri ji te yow les doo waxtaane xam nga a gisee si àddina mais xanaa kañ làmb ja sax ñi nga xamante ne arène nationale balaa ñoo bëri ji daanañ la soo génnee saako yi da ngay perte soo dóoree coup irrégulier avertissement la soo defee di avertissement la nga ne loolu doo ko waxtaanee mais loolu yëpp la nga yaakaar ne politique xol ak dóor rek violence rek moo ko def politique yëfu xel du yëfu dof politique yëfu xel du yëfu xol politique yëfu xel du yëfu violence te nag PDS naa la ba ilaa yombi di laalo suñu trajectoire politique taal réew mi ba ilaa yombi sax ci jamono laa la wax dañ ko doon jàpp ne ko ràpp ci kaso bu mu nekk ci kaso bi di nangoo négocier di nangoo waxtaan pour rek bi ñu dugg Sénégal ci guutal wax lan moo mën a tax ñun tey ñuy changer suñu posture parce que tout simplement na ku nelawul si ne kenn du nelaw lan moo mën a tax lan moo war a tax tey ñuy changer seen posture parce que am na benn xëy na sëriñ politique bu taxaw fii bëgg ñi ñu jébbalu ni ay taalibe ñu koy topp si loolu dama ne koy xalaat ñun ñu nekk sa taalibe kon da nga te doo gis ku ku ku ku lay sëkk amal topp kenn si logique am ñun on libre on est indépendant dañuy apprécier li ñuy def te dañ koy assumer te nag gis nga loolu ñuy def. Sénégalais yi su loolu la ñu nawee saa ñu demee élection ñu wanaat ñu ko lu tool yi bëri bëri bëri yàgg nga dégg PDS benn te saa ñu demee élection ñu wan leen tey ñi ñun ñooy opposition bu ëpp député à l'Assemblée nationale y compris Pastef ñi te yàgg nañ taxaw fii seen i journaliste bëgg ray PDS dama ne PDS bi merci beaucoup euh, Malang Fadera maa ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di la sant voilà may fàttali ni secretaire général nga bu parti démocratique sénégalais ca euh, Bagnères nekk responsable de l'UJTL merci beaucoup Malang Fadera ci disponibilité bi.